ma ñëw di teg nuyoo yi ak ziara bi sa loxo muy nga gënal ñu ko fee rak ak njaboot bu teew yëpp di njaboot si sant yàlla nag bu baax bi ñu fekkee ndax kóllëre bi bu yàgg moo dox suñu diggante bu jiitu may jot ci réew am na lu fi seen Mansour wax léegi junj ko ah 2012 bi ma fi ñëw ci campagne électorale di wut réew mi yow kese kilifa diine yi yaa taxaw fii bu coow li rëy na damay accusé man wax naa lii kilifa diine yi wax naa laa kilifa diine yi euh, donc yaa taxaw ne kat kilifa diine yi ay citoyen la waaye réew mi keroog la jàpp jàpp kon sëñ bi mosuloo ma seetaan mosuloo ma bàyyi benn ci say ñaan ci sa xelal ci loolu du mbiru président de la république ak boobu nag moo ëpp solo parce que mbir la boo xam ne dépendrul ci situation yi dana xalif sax moom ba ilaa yawmi dini xalif lay daan président nag dina dégg ancien président la rek waaye ñu sant yàlla nag du du ñu mayee aussi ñu toog ba fii war a yeggali suñu liggéey ci anam ñii ñu ko yeggali ci suñu